maam max yur la ñëw na ba wey gaaya doora lañ cu biram yaxtafoo asaarate billaay walaay rulaay wasiirul imaam max yur la ñëw na ba wey gaaya doora fa mbiram yaxtafoo asaarate yàlla na yàlla jërëjëf Ablaye jërëjëf yàlla na yàlla fayal dañuy ñaan na ñëpp toog fu waaye toog mu toog may leen sa ngay bi ba ca kanam ñun doon xaar ak si nanu wax lu bayti rasool ñu ngi nii toog ak si nan ñi ñaan lu waaye doon def mu toog ba nu ñaan ba pare sunu baay Mouhamadou Al Amin ibnu Seydina maam Babacar Laay mu sunu maam Seydina Lim alayhi salaatu wasalaam mi nga ànd ak ay rakkam Seydi maam Libaas ak Mouhamadul Mokhtar al imam ak njaboot gi yëpp si mbégte ak bànneex vraiment axlulaay gi yëpp. sang bi joxe mbokk yi ñu ngi en direct macha allah ànd ak waa Nurul Mahdi ñu lëkkaloo ak Jàmmalaay FM quatre-vingt-dix point trois waxee bu ko defee jamono ji ñu ngi ñaan nag di ñaan nag yàlla defal jàmm. محمد سيد العرب العرب والرجاء اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب والرجاء اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب محمد وسلم إلا وهو عطر محمد وجاء اللهم صل فطيبت الوجه ثبتي بمحمد اللهم صل كوكو محمد يا سيدنا يا رسول الله اللهم صل مصطفى على محمد سيد الأرادين المصطفى على محمد سيد الله يلا تولنا كل sunu soppi bi gëm sunu ndaw yaa rasulallah ay yàlla lu toll sa xam-xam ay yàlla lu toll sa man-man julli ci mbindeef bi amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal laa muhammadu rasuulullaah sallallaahu gi yàlla na ko yàlla jote leel ahlu bayti rasul gi yëpp si góor jigéen mag ak ndaw yàlla na yàlla yokk gi waaye comme ne ko seydi libaas waxe xaasatan ñu ñaanal sunu baay moom dal mi nar a ronu tànt bi nee na bisimilah yàlla nga si dugg ak bisimilahi rahmaani rahim gën a ceg alhamdulilahi rabil alamin sanga bi ne ñu jàng ñun ñëpp nag dafa naaj ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti salaatul fatiha ñaanal réew mi yàlla na fi yàlla dolli jàmm ñaanal mboolem xalifab lislaam muy tijaan muy murit muy xaadir muy ñaseen muy Cenaba Cenaba ku mu manti doon ku nekk xalifa rek sa kër maam sang bi ne yen bi la yàlla yen yàlla na la yàlla jàppale ci yen bi ñaanal nag jullit ñépp nag si gàttal daal seen imaam libaas ne lu fi aajoy waaye yàlla na ko yàlla faj lu fi tiisu waaye yàlla na ko yàlla teggi lu fi jàngoroy waaye yàlla na ko yàlla saafara ñaanaa leel seen doom ji muy Seydina Isa taw ba Abdullah yàlla jàppale loo si sa kàddu nga dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin ñun ñëpp ñu jàng ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti salaatul fatiha قولوا آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا ربي آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين آمين يا رب الله آمين آمين يا رب العالمين آمين يا ربي آمين يا رب العالمين بحرمتي لا إيه Habib Allah Seydina nen yàgg na te ngeen gàntoo yoon nen yàgg na te ngeen gàntoo yoon nen yàgg na te ngeen gàntoo alayni rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alxaadir alaalimi saatir salaatu wassalaamu ala awali xalqillahi waaxil mabkuus seydina Muhammadu Rasulullahi la ilaha illallahu Muhammadu Limaamu Laay la ilaha illallahu Muhammadu Rasulullahi la ilaha illallahu moom ma doy li maamu laay laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi laa ilaha illallahu moom ma doy li maamu laay laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi laa ilaha illallahu moom ma doy li maamu laay laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaaha illallah muhammadu limaamu laay salli ala muhammadin sayyidul arabi wal ajab allahumma salli على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل على محمد سيد العرب اللهم صل على محمد سيد الغراب والعجاب اللهم صل على محمد سيد الغراب والعجاب اللهم صل على محمد سيد الورى بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأرحب بكم أجمل الترحيب في هذه البقعة المباركة من أرض السنغال madinatu Cambérène al mahrusati bi iznillah bismi al xalifat al aam Seyd Mouhamad al Mokhtar mu Seydina Mandione ñu ngi leen di nuyu ci mbaaxu yàlla ak màggaayam jëkke ci nuyu bi nag fa tabaarakallaahu sëñ Mouhamadul Amin ànd fa tabaarakallaahu maam libaas saas maam libaas ànd ak fa tabaarakallahu al imaamul akbar di sëñ Mouhamadul Mokhtar mu sëñ noo Baabukar ñoom ñépp ci turu xalif bi ànd ak it Seydina hum sama baay raan di bay Seydi Thiaw ñu ànd ak nag njaboot gépp gépp nag ku gépp ngi fi loolu nag dafay am lu muy symboliser fii yiw rek moo fi ne lu baax rekk moo fi ne yàlla na ko yàlla gën a sax a ah, ñëwit fekk feet kilifa yu baax du sëriñ fii Cissé mële toogee fii Serigne Maodo siise bu fi toogee na leen wóor ni këri diine yi toog nañ su ma taxawee fii na leen wóor ni li Sénégal am ci këri diine yëpp taxaw nañu fi loolu laa bëgg mu leer ci bopp ñu bari te ci kanam a ah, daañu xam li may wax mooy lan sant nag bu baax nuyu fa tabaarakallaahu kilifa yi fi rot tàmbalee ci imaam Libaas di imaam raati bu dëkk bi jaar ci moom di nuyu aïma yi ci gox bépp borom bis bi le premier magistrat bu Cambérène di bàyyi dun beng di meeru dëkk bi ànd ak kilifa fi ne alaaji Isaa alaaji Dudu Aan Assane bii nga xamante ni moo jiite délégué de quartier yi ak le comité local bi nga xamante ni ñoo taxawee ñoom ñëpp dajaloo teeru kilifa yu baax yi waaye jàkkaarloog balaa ñuy tàmbale et la communauté da ca jëkk mooy représentant yi toogal xalifa bi ci gox goxaan yi ak boroom dëkk yëpp waaye tëje ci gërëm et la communauté laa yenn nag ñoom ñëpp sant leen gërëm leen ñaan yàlla yàlla leen yàlla yokk et eh, santit ñi nga xamante ni ginnaaw yàlla jël ca jëkk mooy le groupement central di administration wu diine ji alaaji jaaju jiite ko ànd ci Mbay Fall Daouda Mbay Moustapha Dem ak ñoom fédération des daïra Alaaji Njiin Aada Alaaji Pël ñoom mais Idrissa jàppale leen lool lu mat di wax la na ñooñu nag ñoo constituer le comité d'organisation li fi baax ak li fi taxaw ak lépp ginnaaw yàlla seen xalaat kon yàlla na leen yàlla fay ci biir defe naa imaam libaas gaye nga ne su ma nee imaam libaas gaye damay dellu taarix ñii kat seen maaman ba bàyyi lay taxawee day geesu di diw lu jibril waxoon ci nangam daka dale ca tafsir abdou gaye cheikh matar loo maam jibril gaye ba ci oustaz saxir gaye kon bu libaas gaye toogee fële tey sëriñ ablaay daan taxaw yooru yooru jàmmalaay bari na lu mu daan wax ci waxu bàyyi waa ji la daan génne kon moom it li mu ëmb ci comité ou bien la commission scientifique te xale yi liggéey liggéey bu rëy ci xam-xam dañu leen di féliciter jaar ci moom it commission yëpp ci bi ñu nuyu leen balaa may ubbi fii yàlla leen yàlla fay ah dalal suñuy gan ka ci jëkk mooy le sous-préfet des Parcelles Assainies nu ngi koy dalal jaar ci moom moo fi toogal président la République di ko nuyu di ko gërëm di ko sant bu baax a baax moom président Macky Sall fii lañ doon taxaw ni ko jëf ay at di ko doon jërëf jëfal yépp moo ko fi def kon bu demee ba ni maa ngi dem war na noo am ngor taxaw fi ñu ko ni woon jërëjëf ñu delloo ko ni nga jërëjëf moom président Macky Sall nu ngi koy sant bu baax a ñaareel bi kenn ku am solo mooy Barthélemy Dias sunu dëkk yi Barthélemy de yàggagu fi comme maire Dakar mais ku taxaw tey gor war nga ni ko jërëjëf fii nuyu kilifa yi nga xamante ni egsi nañu fi moo xam sunuy njaboot lanu muy maire di fi ñëw maam mëgéy di ah njaboot gi bàyyi Seydina Sàmb ñoom ca Yoof ah di meeru Kayar ah di gani dun waaye ci njaboot gi ñu ngi leen di nuyu di leen sant yéen tamit seeni i taxawaay bu ñu xoolee ci wàllu sécurité nos force de défence et de sécurité du leen di gën a sant di leen gën a gërëm mais sant le commissaire Khouma unité 15 ak li mu yor tal diine tal ka la tudde tal ginnaaw yàlla na xool leen jaam yàlla yi leen wër depuis nangam ba léegi ñu ngi taxaw ginnaaw yàlla di ñu sécuriser kon ñu ngi leen di am cant bu rëy rëy amit feet ay gan les ICS ñu nga ne lee toog buñ leen waxee dafa am lu ko waral. Euh, madame Sandrine uh, uh, uh, Sandrine Gomes ànd ak Ibrahima gay di waxuma la du nu ganu Seydina waaye mën naa ni Seydina Isa fala jaar jaar tay ba ndaari ba ngaa xam ba muy dem ngaa xam kon ñii war nañoo mën a toog fii nu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax e sunu doom ñu ne bitim réew de layen de la diaspora ñuy am ci ñoom mbégte ci ay taxawaay yu bare bare bare di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla dëgëral leen téye leen jàppale leen santit sunu boroom ci li mu nu defal noo fi ñëwoon fii ay at yàlla tàlloonu ko kon yàlla nañu yàlla gunge jàkkaarloog nag la presse bi nga xamante ni dans sa diversité li ma koy waxe média d'état comme média privé presse en ligne presse écrite presse ceci ñii xew-xew bu mel ni seen loxo dugg na ci lool yàlla na leen yàlla jàppale bu baax a baax te leen rafetlu nanu seen liggéey non seulement fii mais ci réew mépp yàlla na leen yàlla jàppale bu ngeen nu déggee tem la yor mu ngi bëgg a yàgg nag ku ñëw ba fii war ngaa wax le pourquoi thème bu mel noonu ñëw walaatin ñëw nag ci waxtu wu mel nii nun masunoo liggéeyal ay waxtu yàlla rek lañuy liggéeyal ndax waxtu yàlla rekk fa ne lay ñëw ëllëg ak ginnaaw ëllëg xamuñu ko waaye sañ nan ni yàlla lu ñëw yàlla nay njariñu doomu aadama yépp safaan baat yàlla nañu ko yàlla dàqal ku ne sañ ba yàlla suturaal nu keroog ba mu ñu defee ay nit lanu nangu suñu nite waaye am suñuy limit bu sooboon yàlla nit ba koy jiite kon day yónni malaaka ya ci kaw te du xool te du xool ci suuf bu yàggee mu àgg suuf nun boo waral benn ci ay thème ñu andi ko mais tas que ñaar ñaar moonu ci amal solo ba ca des réew mee ko moom ba ca jëkk yàlla xëyul rek tëb andi risaala déet nit la yàlla binde ba pare gis ci boppam bàkku dañuy xool lu ñuy tuddee unité de la race humaine wahdatu al jinsil bashari yàlla ba mu bindee nit dak fa ak na mu ko binde la xool boppam bàkk boppam tabaarakallaahu ahsanal dara newul sama wet keneen man man rekk maa man lii booba diine ñëwagul ba ñu naan diw toogal fee taxawal ngeen xoolee yaa ayuha nnaas inna xalaqa unsa ila axiril aaya ñëla ñépp nga ca biir dellu ci gàttal ñëw nun di ay jullit nun moo waral woote kon biit bu ñëw ci unité al umma al te doomu aadama yépp la woon noo ko bokk ba mu wàccee diine mu tànn ci lislaam jëlaat joxoñ nu nag nun lislaam lislaam principe général ci lislaam mooy waxdatul muslimin tariixa lu fi ñëw la après bennoog jullit ñi laa wax mooy principe général ci l'islam waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu waskuru nicmatallahi alaykum is kuntum aadaa fa allafa baynakum bi nicmatihi iqwaanan ay bi nicmati lislaami iqwaanan diine jii nag kon bu ñu jàkkaarloog yéen ibnu tarixa kii mooy kii kële mooy kii kii déedéet di yàlla wax lañ fi wax inna haasi ummatukum ummatukum wa ana rabbukum lanu jàkkaar lool ma jaar ci ñoom lépp lu Sénégal am ci këri diine yi fa tabaarakallaahu ca mag ña ba fii ñu toll ñu ngi ñaan yàlla kilifa ya ku ci lakk lu ci waay yor ak loo yor ci diine ji yàlla na yàlla sàmm nun dey am nañu fierté ci sunu histoire Sénégal laa ni bi yàlla baaxal kenn mënu cee rocc Sénégal ay mag ñu baax ñoo tëdd ci réew mi xeexal yàlla xeex bu rëy ba mu gënee jafe ñooñu nag ñoo meññ li nekk ci réew mi kon ku ci nekk bu ñuy wax waxdatul muslimin danu fexe ba dëgg dëgg bii ñu taxaw tey ku nekk ngi ku ne la waay jóge ku ne la waay nangame waaye bu ñu tas yaakaaru kenn ne ñépp sentir ni ku ci ne yaa nga fara war a nekk kon ñaar ñii lay tàmbalee lële mooy unité de la race humaine ñoo ko bokk yéefara ku dul yéefara ci bokk lii nag ummal islamiya moo ko moom contrat la principe général bi mooy ni ñépp nag ànd ci kaw loolu ñetteel bi tëjee ko nag ci senegaal Sénégal benn ay nit lañu la ëpp ca ñoom ay jullit lañu waaye ñeneen nag fekk du ay jullit waaw ñeneen ñu ngi fi ñu ay jullit ça veut dire que ni société la ñu am boo xamante ni noonu la yàlla tërale suñuy te noonu la yàlla tërale àdduna nee naa leen yàlla bi nu bind ñun ñëpp amul unanimité fu mu ko amee amu ko yàlla ñi ko weddi dëgg ñoo ëpp mais teewul dafa jël jantam bi nga gëm ko ñi ko weddeeg ñëpp boole leen lépp manoo ni ki weddi yàlla doo ko xañ jant bi lañuy jar yéen ñëpp ka te teewul mooy raxmaanu di rahim kon li nu amal solo ay nit lañu d'abord ñenn ci ñun ay julit lañu mais bu nu fàtte ni nag dañoo ne ci réew boo xamante ni jullit ak ku dul jullit ak ku dul nàngam ak kon ñooñu lan moo leen war a boole foofu problème bu dee senegal dafa am ci lu ñu toog muy la loi fondamentale nga xamante ni moo boole senegal nee nañu nit ñi ñëwaat ci diine bu ngeen ñëwee ci sartu réew mi ci constitution bi article premier xool leen la réew mi wax wan leen diversité bi am ci société sénégalaise mu ne la république du Sénégal est laïque démocratique et sociale elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de région, elle respecte toutes les croyances li mooy Sénégal d'abord ay nit lañu jullit lañu waaye ci biir jullit gi li nu yàlla boole nag ci suñu réew ñun fa tabaarakallah diversité tey moo fi nekk kon li nu mën a boole te dinaa ko répété waxaat que mais c'est la citoyenneté kon xeexu diine xeexu askan xeexu nangam dina attirer attention autorité yi am na lu commencé am ci réew mi ci waasoo aw nit dañuy jote ñoom ñaar waaye léegi bu dëkk jógee song dëkk ci waasoo bay reyante alerte jot na mosu fee xew la xewoon kireen maa ko wax de entre ñaari communauté ndépp di doomi Sénégal du dem ba dëkk di songante ay dëkk ma ne benn baaxut ñaareel bi waa tefes gi laa koy wax la ko dale ba keroog ngay dem euh, comment dirais buur ba keroog ngay dem ba keroog ngay dem dama bëgg loolu chef coutumier sax ñoo cëpp ko solo li commencé am ci bi benn baaxu ci bu ñu demee ba doomu Sénégal amul liberté ci biir géej gi Sénégal yëpp bokk nag te démb mag ñi ñoo àndoon tey naa limaam dalaa napp mu ngi si taarixam di dem Banjul di dem nangam di dem nangam di dem nangam ñu war a mën a toog ay doomu Sénégal bokk tefes dem ba ciy reyante lu jiitu loolu ay chalutier ay bateau ay étranger jël sa richesse ba yóbbu yéen ngeen di jabantey paas yooyu ak ñu ko niru lu mat a teel dindi la benn baaxu ci du tabu lu ñuy nëbb ay doomu Sénégal mag ñi démb boo fi dem tey ci code bi dañoo séyante woon amante nangam seeni njaboot nekk fi jaadu mukk ñu naan tey anu waa Kayaar anu waa Gëndar Mool anu waa anu waa xale yi anu waa Fass Boy ñu ne ngi xeex fii ci géej goo xamante ni macha allah ca mag ñu jëkk ñi dañoo bokkoon seen lépp kooku ñi ci wax ñu yore coutume bi wa tabaarakallaahu état Sénégal moom lu jëm ci wàllu ndàngam parce que loolu leneen la ci sa mission régalienne de l'état mooy mu assurer la protection de Sénégalais kon loolu rek ci gàttal fi la ñu jëm kon bismillahi rahmaani rahim inna machiata allah qad qadat an yakuna albashar mutanawiina fi alwaanihim wa lugaatihim wa jinsiyaatihim wa adyaanihim wa saqafaatihim wa hum fi lmaamuurati muntashiruun fi xaaraatin wa aqtaarin muxtalifa lakin allah subhanahu wa taala shamilat rahmatuhu alayhim wa hadha tanawu saraan wa isran insaniyan kon lépp ci diversité rek la ko yàlla binde moo nu def ngeen ñëw ñu woote ngeen ñëw fii tey yéen ñi fi teew ñépp bokku leen kàllaama ñu ngeen di wax bokku leen fi ngeen jóge waaye li leen boole tey jii bu dee jullit mooy laa ilaha illallah la leen boole ci nitet yàllaa leen boole ci loolu dëkkaloo leen réew mu tudd senegal mu am seen réalité interne yi ma doon wax sànq bu ko defee na fi citoyenneté nekk war a mën a téye ñëpp kon foofu rek lañuy fexe di ñaan yàlla ah yàlla na yàlla defal ñépp jàmm ah bàyyi lay almuminuuna kulluhum nag ixwa wa laysa fi lislaami adaawa wa bagda waalamu ann diin annasiha walmahaba wa taawun wala tanazawa ila alhuda illa ila alhuda wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yàlla na yàlla indi jàmm ci réew mi yàlla na yàlla suturaal ñépp allahuma salli yónneen yàgg na te ngeen gàntoo yónneen yàgg na te bàyyi Seydina Isa yàlla nañu yàlla ñu fekkee déwén léegi nag ñu may Seydi Mouhamadul Amin tabaarakàlla macha allah yàlla ko yàlla duggee moom itam ba mu teer mu doon naay kiraamaaw sigil na gaa woon limaamoo yi kiraamaa sigil nagaa ya fekke woon limaamoo yaa wax ju dee te jëf lu giif mbar waadaay wuute wulaay doomi Maria masooda yaa wax nu dee jëf lu giif marwaada wutewulaas doomi mariyaam masuuda waa kambareen ab yeen medaa yab diine yella lu naan sigir lisaan سجل لسان في الخيانات jërëjëf Laay Muxtaar tabaarkàlla macha allah sang bi Seydi Mouhamadul Amin ibnu Seydi Aboubacar ibnu Seydina Limaamu Laay il Mahdi alayhi salaam nee na bismillahi rahmaani rahiim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم amin amin amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin sang bi nee na asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nee na ñu ngi ubbee bismillahi rahmaani rahim baat bi yàlla tànn di ko ubbee ay kàddoom yal na yàlla barkeelal nu sunuy kàddu yal na yàlla barkeel sunu jataay bii ubbi gi ko ubbee sang bi nee na yal na ñu teeri ci alhamdulillahi rabbil alamin amin di leen wax jàmm yàlla yal na nekk ci yéen defe sang bi nee na ku ñaan jàmm yàlla ci bërëb bu ñuy wax jàmmalaay ñaan nga ko fi ñu ko war a ñaane ci ban bés bés bi Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wa salaam waxoon ajibu daayallah yaa maxsara al insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum ñu ne bis bi mu ko wootee ak léegi toll na ci téeméeri at ak ñeent fukki at ak ñeent lu yàgg dëgg la nee na sang bu tedd ba Seydina Babacar daana wax nee na laay ah lu dañul rek doy loo xam ni ku ne jéem nga ci ba tey jii ngir fay ka ba ñu dajewaat fii di ko màggal ñëwoon toog rek tudde yàlla ñu ne waa ñoom ñu nga fa ba léegi ña nga ak wax ji ba léegi doy nag sant yàlla ana waa laayeen ñoom kat tey leseet appel bi ana waxtu yi fu ñu ne ñu ne ña ci xabru Seydina Isaa Ruuhu ngir lan di fa ubbee oote bi ngoon ñu dem Ngor fa yàlla làqoon leer ga ëllëg ñu dem jàmmalaay ca yoor yoor ba Seydina Limaamu Laay woowoon àddina ku ko def téeméeri at ak ñeent fukki ak ñeent santal yàlla ndax ku weddi bàyyi laay la nga yéene woon mu dal bàyyi laay yemoo ci yéene ji nga jaxasaka ak ñi nga jàppoon ni ñoo yor nguur ñu def ba tële ku yobu bàyyi fi Seydina Limaamu Laay te xam ni ndagam tubaab yee ko fi bàyyi woon sëriñ si bàyyi ko fi ah ku yobu bàyyi fi Seydina Limaamu Laay loo xam ni samaam fi la ko bàyyi sa bàyyi fi la ko fekk bàyyi ko fi yow boo bëggee am jàmm bàyyi fi loolu moo tax sang bi nee na ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ñu leen di bu baax tey ñaan yàlla yàlla na nu fi yàlla bàyyi ba ñu fiy daje ay at yu baree baree bari li wóor mooy ñett ngi yoo xam ni kuy ñaanal ñaanalal sa bopp di nga fi fekk waaye ñett yooyu fi lañ koy bàyyi ba àddina tukki aateb Seydina Limaamu Laay dañoo juddu dañu juddu màgg ci dee ci bàyyi ko fi ñeneen juddu màgg ci màgget ci dee bàyyi ko fi loolu yàlla garantir naka bàyyi lay beneen bi kéemaanam gi mu randaloon géej gi dañuy dund màgg dee bàyyi ko fi bàyyi lay tëdd rek ci booru géej rek na nga naan antum lam taarifuuni wa ana albaara arafani wa arafa xadri inda rabbi jalla wa azza waa loo xam ni xaadimu rasul ku nekk respecté na ko ci réew mi mu ne may jëwriñu yonente bi moo ne lay tegtale ni kooku ne yàllaa ma yónni yàllaa ko yónni mooy dina wàcce ci moom lu ñuy wax mujiza mujiza nag yàlla rek mooy ànd ci ndawam mu def ko waaye bu dul moom kenn mënu koo def bu dul woon yàlla moom ci boppam mu du mën mujiza sadaqa kon kuy ñaan ñaanal yàlla naa ko fekke déwén yàlla naa ko fekke ay at yu bari waaye woote bii kenn du ko ñaanal ndax mës ngeen gis ñu daje fi di ñaanal woote bi walla yéen mosuñoo daje def dog ne nañu ñaanal oote bii mu yàgg fi déedéet dañuy fàttali kay ne lii ndawal yàlla moo ko oote woon ba mu fi jógee doomam diine woon mooy Seydina Isa mooy uutu Seydina Limaamu ñu di ko ubbee ci moom mu ne man dey maay buntab limaamu ko jaarul ci man doo àgg ci Seydina Limaamu yéen gaañee ngeen Seydi Rowaala mi ngeen jàngoon yónneen sanga bi nee ngeen jox xelante ko ñaari yoon mu xool yéen gaañee ngeen nu wér góor feeg naa yoneen la sangala ana jigéen ñi wax leen ko la xaar ilaara hmm. seydi roalaay mi ngeen jàng sangala la alaay jaayu leen diiroo waalaay mi ngi jàngoon weñ na yónneen la mam siiri sangala la ilaha illa alaay jaayu leen yéen gaañe ngeen si diiroo waalaay mi ngeen jàngoon feeñ yónneen la mam siiri sangala la sang bi nee na ba yàgg mag ñi ne ko woote nga foore ya weddira bu ñu demee saam la yoog yàlla amana mun day gëm nanu la lay laaxa xayran min imaami xaabiri faanin seen baay wari samaharan amiixan waasihan musawan saraba saraba laysa yuriixal wardaani seydi laay nazalta wa fayta warista ilman wa adaaban wa marumatan waaye jaayu leen gaaña ngeen seydi roo ngin la ilaaha illallah barkalla sang bi nee na mu jox la ilaaha illallah rabbi Rasulullah jërëjëf la mu ni af wa nabiyoon min qabli kalimatu laa ilaaha illallah yonent bi ni li ma fi wax ak yonent yi ma jiitu woon li ñu fi wax seen wax yépp la ca gën mooy laa ilaaha illallah laa ilaha illa allah siraat almustaqim laa ilaha illa allah miftaaxul waa ma ni koo xam ni dañu wax ni yonent yi ci boppam bi waxoon ne li gën ci li ma fi wax ci yonent yi lu gën ci li ñu fi wax mooy kalimatu laa ilaha illa yàlla jox ko Seydina Limaamu mu ne maay ke waxoon wax ja démb maa ko waxaat tey waa ki yor li fi gën boo fi gënul ana ku la gën ku gënul ana ku la noonu sant yàlla bu baax te gis nga wax jooju ma leen wax ni ñëw rek daje nii ndaxam réew maa ngi metti réew maa ngi metti nag waaye woote bii yàllaa koy aaral boppam bu ko kenn xeeb ñu mën a toog nii ngir lan màggal woote ndawal yàlla bu ko kenn xeeb kon nanu santaat yàlla di ñaanal sunu xalifa Seydi Mouhamadul Muxtaar yàlla yàggal ko fi amiin yàggal fi ay rakam maa ngi ànd ak sama rak Seydi Maam Libaas ànd ak sama rak imaam Muxtaar yàlla dénk leen ñuy dundal oote bi yàlla na leen yàlla may ndam du nuyu sunu doom yi Seydi Thiaw mu Bayraan Seydina Issa mu Seydi Abdoulahi yor comité d'organisation bi ak ñi mu ci àndal ñëpp ñun nag ñi ngi doon nelaw ak yeew rek ba nu ñëwee fekk lépp baax ameel nañu leen cant yàlla na yàlla fayal nu leen boo xoolee Seyna ni mu dawale yërmande nga xam ni am na loo xam ni ndono la azizun aleykum ma anitum harisun aleykum bil muminin raufun rahim yërëm nañu leen ci toogaay yi yërëm nañu leen ci naaju tàng wi naaju tàng wi yal na wecci sunu kër ëllëg ca àllaaxira keroog ba kër jafe amin jar na ko de bu ko kenn jàmbat ndax am na ñoo xam ni ñu nga topp naaj wa ak poussière ba ci lu dul diine kon lu ñu dal ci diine diine jar na ko beneen bi jamono yële réew mi yëngu woon na metti woon na ñu dem ca Seydina Limaamu aley salaatu wasalaam fa mu tëdd di jàmmalaay ba ñu fa ñaanee jàmm yàlla may nanu jàmm ca yooyu jamono bu réew mi yënguwaatee appel dëkk ñëw sas la ci ñun jàmm ci réew mi waa jàmmalaay ñu ngay ñaan jàmm ci réew mi lii am yàlla dogal appel jiitu ji kon appel bii nanu ko def appelu ñaan ku nar a yàq réew mi nag la Seydina Isaa waxoon mu ne fii manees na fee yàqule waaye kenn mënu koo yàq nañu bàyyi xel ci ne réew mii mag ñi fi jaar samp bi ñu ko samp ku ko bëgg yàq yaay yàqu waaye réew mi moom du yàqu bu soobee yàlla nañu bàyyi xel ci ne ndegam gëm nga Serigne Touba ndegam gëm ak maam Alaaji Malick Seydina Limaamu ak ñu baax ñi fi yàlla wàcce bu dee gëm nga ni seen ëpp liggéey yàlla du ko neenal mukk du ko neenal mukk boo bëggee yàq yow yaay yàqu waaye réew mi moom du yàqu Seydina Isaa ni manees na fee yàqoo waaye kenn mënu fee yàq nee na yonent bi nee na fitna ngay nelaw yàlla rëbb na képp ku yee fitna ku ci ne ci nun na bàyyi xel ci ne yee fitna dina waral nga bokk ci ñi yàlla rëbb te ku yàlla rëbb jàpp am na yoo xam ni mooy ki toog ak ki koy wut lene la ñuy wut nguur nguur nag am na foofu ba fa yeggee jaratu ko bakkan di ci dee bakkan di ci loru nga war ka la yoo ëllëg ca kanamu yàlla yow mi wut ak yow mi toog ku mu ko jaral naka di nga dajeek yàlla ëllëg maa ngi koy fàttali Sénégal yépp dëkku jullit la ñu nekk jullit ñi ñoo ëpp ñu jullit jullit nag yàlla dafa bëgg pas-pasam buy bëccëg guddi mu dese pas-pasam ku gëmul bés penc nag loolu sa affaire la waaye ko gëm bés penc ëllëg ne yàlla dina la àtte na nga bàyyi xel bu baax ca la nga xam ni yaa ngi koy def mu sabab ay bakkan di ci wadd ay bakkan di ci loru réew bi di ci yàqu nit ñi di sonn nañu bàyyi xel ci loolu Sénégal yëpp nag sang bi nee na laa ko wax ki toog ak ki ut jot na fa mag ña tegoon seen tànk ñu tegaat fa suñuy tànk maam El Hadj Malick fekkante nag sëñ Touba fekkante nag seen alimaamu fekkante nag mboolem ñun ñu baax ñi kenn musu leen a dégg ñu ne jàppal diw jàppal sëñ Touba jàppal seen jàppal maam limaamu kenn musu leen a dégg. te dara tënku leen woon lu dul diine bu ñuy wax islaam ñu tëgg ko ci baatu salaam suna alal ard hawnan jaa'iluun xaalu salaama salaaman asalaamaaleykum boo koy wax tey dox ci fitna salaamaaleykum ba pare yow mi wax di dox ci fitna ci salaamaaleykum jooju fan la tegu yàlla da koy nangu kon ka ñaanal day mën na ko am bu la nee waaleykum salaam te fekk doxoo ci jàmm yow day doo am jàmm yow lii daal sang bi nee na mooy dénkaane li mooy dénkaane li di ko dénk sunu bopp di ko dénk Sénégal yëpp wattaqu fitnatan laa tusibanna lazina minkum xaasatan wa'lamu anna allaha sadidul iqaab bàyyi lay nee na ñun waa laayeen coow la na na ngeen riir rek waaye bu mu dugg ci seeni xol bàyyi lay xeexloowul kenn reyloowul kenn diine la du jox sellal ko teg na ci siraatal mustaqim ba képp ku ci ne la sëriñ lan daan wax booy dem da ngay nelaw rek ñaan day nelaw rek te ka dem ngir déggu sedd pay ga ci lut mën a teg bët boo demee armeeli bàyyi laay doo fa fekk kenn ku tegu ci yoonu Seydina Limaam ba dugg biir suuf bu nit ñu doxee juróom ñaari jéego wàññee nga sulli boo sullee doo fa fekk kenn la koy maye nag mooy li bàyyi digle nga nekk ca te bàyyi lay booy xool am njàngaleem bu ko ñëpp defoon kenn duñu dégg ci dara ku la dab dog sa kurus foral say perte dem bu bañee ne bàyyil kurus gi doo for per yi bàyyi kaak kurus ga te wut si kurus bu ñëpp tënku woon ci njàngalem Seydina Limaamu Laay lii xew ci réew mi wallaay du fi xew ndax lépp àddina la rek te lépp day jeex lu ne jaar na fi dem dañ fiy jóge dem yeneen ñëw ba keroog àddinay tukki sanga baa ngi soññee loolu Sénégal di soññee ci laay ni na ngeen ànd ak dal ko bi ñu yëngoo yor leen seeni kurus tudd yàlla daayira yi moo gën yeneen ñi sol sa lu weex doo topp poussière bi di noŋñi noŋñi ngir àddina lii nu am sol suñu lu weex di tudd yàlla ñépp di ko roy bu doon safaan kenn du ko roy ñu ngi leen di fàttali loolu na ngeen ànd ak dal fu ñu ootee am yàq bu leen dem fu ñu ootee xeex bu leen dem xeex jeex na ca démb la jeex bàyyi lay ni jaadu nafsi laa leen woo mooy am retenu retenu am na loo xam ne bu leen ci kenn yóbbu mooy ndigal li Seydi Maam Libaas imaam Mouhamadul Muxtaar wax jàngoog nee na kenn xamu ci wàll am na loo xam ne kenn xamu leen nee na gis nga yàkkam ci sa àddina ba tax nga yaakaar ni dem fitna xeex xuloo moo la koy may qul maalikal mulk tuuti mulka man tashaa wa tanzi'u mulka man tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa bi yadikal khayri innaka ala kulli shay'in qadir kon nag sanga bi ne ñu ngi ñaan yàlla na yàlla def xel yi dellusi si te ñu xam ne amuñu lu dul senegaal mu neexoon nag ba xale yi kenn bi jël gaal yi moo nu gënaloon muy naqadi ba fi nga juddoo màgg fi nga dem ba dee gënal la ñu woon yàlla loolu ci réew mi mag ñi it liggéey ju woon loolu lu ci ne nag góor góor koy maye ak di sédd yàlla ba nga xam ni kenn ku ne ci nun dinañu àtte ëllëg sëriñ Ablaay daana wax ni bu nu yàlla vérifié jàppal yu de bu yàlla vérifié dinañu jàpp de kon nag loolu moo doon kàddu yi ñu jotal ko ki yàlla teg jaboot gi yëpp ci benn kàddu googu ca la fekkoon sunu maam fekk fa sunuy baay sunuy mag ba ñu ñii toog te dañ fi jóge ëllëg loolu mooy kàddu yi ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko fekke at yu baree baree bare te rafetu fekken ñu ngi leen di jéggalu nag jataayu yàgg yi waxoon nañ leen ko ca yoor yoor ba yaram yi ay nit rek lañu mislukum yooxaa illaya ay nee na ay nit rek lañu wallaahi alasaan wallaahi ay nit rek lañu di ngeen bàyyi xel ci loolu di ñu jéggal ñu ngi leen di jéggalu di leen wax ni salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. tal leen loxo yi. amin yaa rabbal alamin amin. amin. amin. amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin laa ilaaha illallaah kan muhammadu rasuulullaah sallallaahu alayhi oto yi baare cortège bi fi cortège war a jaar nan leen dimbali waay oto yooyu am nen yàgg na te ngeen gantoo yoon nen yàgg na te ngeen gantoo ala muhammadin sayyidul arabi wal ajab allahumma salli ala muhammadin سيد العرب والعجاب محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد الإمام لا إله la ilaha illallahu Muhammadu Limaamu Laay la ilaha Muhammadu Rasulullahi la ilaha illallahu Muhammadu Limaamu Laay على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل على محمد سيد العرب والعجاب